الحمد لله الحمد لله الذي أمر بالإصلاح وبشر فقال إنا لا نضيع أجر المصلحين نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا ومصطفانا محمدا عبد الله ورسوله وخليله من خلقه وصفيه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم يقول تعالى اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم أيها العباد إن الاختلاف بين الناس والخصومة فيما بينهم أمر واقع وله أسباب منها أولا الشيطان الذي يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء ثانيا النفس الأمارة بالسوء ثالثا الهوى المضل عن سبيل الله رابعا الشح المهلك رابعا النميمة المفسدة وخامسا اجتناب الأمور وغير ذلك من الأسباب mbokk yi ginnaaw bi ñu sant yàlla suñu boroom subhanahu wa taala moom mi digle ci ñu yëwénal defar ay diggante yu dagg ba pare mu bégale ci moom subhanahu wa taala mi wax ni moom yàlla de duñu neenal mukk yoolu ki nga xamante ni dafay dox di ñëw ay diggante ñu koy sant moom subhanahu wa taala di ko dimbalikoo di ko ñaanit mu jéggal na suñuy bàkkaar di seede ni amul kenn ku nu war a jaamu ci dëgg ku dul moom subhanahu wa taala te bokkaale ñeelu ko di seede ni suñu sang muhammad sallallahu alayhi wa sallam jaamam la ndawam la tànneefam la soppeem la xaritam la yàlla ñu ko yàlla fayal moom ak i saxaabaam ak képp ku topp ci njubam booba borom bi subhanahu wa taala di doon suufam si ñuy dénk suñu bopp mbokk yi di leen dénk ragal yàlla yàlla mu ni ittaqullah wa aslihu data baynikum na ngeen ragal yàlla te ngeen di ñaw seeni diggante ngeen di rafetal seeni diggante di jokk yi nga xamante ni mooy diggante yu dagg mbokk yi lii de ak wuute buy am ci diggante ay nit wala ci diggante ay réew wala ci biir famille bépp réeroo bu mën a doon bu jur ak daggoo yi koy waral de yii ñuy bëgg a wax la bi ci njëkk mooy alcheytaanu alladi yaidukum alfaqr wa yamurukum bilfahsha benn noon bi nga xamante ni moom lañu yàlla wax ne mooy seen noon muy iblis ay mbiram yépp mooy yàqal ñu ba pare di ñu digal lépp loo xamante ni luy jur ak ñaawteef la ñaareel bi nga xamante ni mooy jur ak daggoo ak ñaawoo ba tey an nafsul ammaratu bisu mooy suñu bakkan yi nga xamante ni ca lam ñuy xirtal mooy ca la ka neex rek an nafsu ko tifl mbokk yi bakkan comme liir soo ko feralul du mës a fer kon lépp loo xamante ni ak ñaawteef la nga koy def ginnaaw seytaan ci sa bakkan boobu lay jaar ngir di la ci nuural muy jur ay ñaawteef sa digganteeg ña nga ña la wër ba mu jur ak daggoo beneen bi nga xamante ni day jur ak daggoo ak ñaawoo mooy alhawal mudillu an sabilillah mooy topp sa bànneexu bakkan féttërlu dem ba ñëpp wala yëg sa bopp sax ca la nga xamante ni moom la yàlla dénk mu bokk ba tey ci liy jur ak daggoo li koy sabab ak ñaawoo asuxul muhlik mooy bëgge yàlla dénk la dara wala nga nay bëgge wala nay ci loo xamante ni ñu ngi ni ah dañu soxla woon de ku mën nangam nga gis ne diw de mën na ko ba ñu tudd ko sax ñu ne diw de mën na ko nga ne ah waaye kooku de mën nañ ko jox keneen ngir xañ ko ko rek wala sax yow nga mbubboo ko ni man mën naa ko ngir yemale ko sa bopp loolu bokk na ci li nga xamante ni mën na jur ak daggoo mën na jurit ak ñaawoo mbokk yi yii ñu wax nag li muy sabab cib kër wala cib pénc wala ci am réew mooy atanaazu baynal baynahum mooy ak werante guy am ci seen biir ay juu yooyu am seen biir moo xam diggante papa ak doom moo xam diggante borom këram soxnaam moo xam ay dëkkandoo moo xam ñi bokk ak liggéey moo xam moo xam lii jur ba tey li mu mën a jur mooy suu zan mooy ñaaw mooy ñaaw njort ñaaw njort mbokk yi mooy firi sa géntu moroom firi sa géntu moroom ci loo gis nit di ko def rek yow nga jàpp ni la sa xel jox loolu la boo gisee nit mu taxaw ak garab sax nga ne jigéen la taxawal bu duggee ci kër jàmbur nga ne lii da la fay waxi ji boo ko gisee muy dox nga ne lii da lay doxi ji yooyu noonu bokk na ci li nga xamante ni moom lay mujjee jur ci am penc te loolu yoon saa salaam nee na ak dannu ak dabul xadiis mu ne lii di ñaaw njort moo gën a bon bokk na ci li gën a bon moo gën a bon sax ak sosal mbokk yi yii ñu wax nag ana lan la ci lan mooy solution bi ci alquranul karim ak ci xadiis yonente bi sallallahu alayhi wasallam ñu delluwaat ci waxu borom bi subhanahu wa taala muy wax ni innama almuminuuna ixwatun fa aslixuu bayna axawaykum wattaqu llah laallakum turxamuun yàlla mu ni jullit ñépp ay mbokk lañ la war nag ci seen diggante mooy ngeen di rafetal jëmale ci seen diggante te ngeen ragal yàlla mu ni lii de su ngeen ko defee laallakum turxamuun yàlla de xarsel na leen a yërëm yàlla ñu yàlla yërëm mbokk yi ñu delluwaat ci xadis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba tey muy jàngale ci xadis abi hurayra radiallahu anhu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni laa taxaasadu bu leen bañante bu leen bañante iñaanante iñaan mooy li yàlla dogal ci nit ki nga ni loolu da waru koon doon loolu waru koon nekk loolu waru koon am te yàlla moo namm ci loolu ci te ko mu am yàlla mooy kuy dogal mooy kiy def lu ko neex iñaan moo nekk noolu moo tax boo ñëwee ci alquran wa min sharri xaasidin ida xasad yàlla mu ngi wax ni nañuy muslu ci ki nga xamante ni dafa iñaan ba iñaanam ak ki ñaanam wér fés te yoon saa salaam waxal ba tey ni alxasuudu laa yasuudu ki nga xamante ni dafay iñaan mu gis nit ki lee nekk ci moom mu koy iñaane kooku de du mës a dab kooku du mës a dab kooku kenn du ko mës a dégg ndax dafa iñaan ndax dafa nangul li ma dagal ci sama kaw jaam moo tax yow saa saa mu ni laa taxaasadu bu leen iñaanante wala tanaajashu te bu leen bu kenn ci yéen di fexe ba li war a nekk ci keneen nga ni loolu de dama ko koy xañ muy escroquerie wala tabaagadu bu leen bañante ku nekk la nga bëggal sa bopp na nga ko bëggal sa moroom wala tadaabaru yii yépp nag su amee la muy jur nee na mooy wanante ginnaaw ku nekk féewaloo dem sa ginnaaw dem sa dem sa doxu bopp wala baya baadukum ala bayi baad bu kenn fekk sa moroom di waxaale ab mbir man de dama bëggoon a luye kër gi nga dem ci borom kër ga moom xamul dara muccee dégg dara mu ne maa ngi koy luyee soixante-dix mille ba nga dem ginnaaw keneen ñëw ca ginnaaw daal ni ah kër gi dégg naa day luye de nga dem ci borom kër gi ñaata ngay luye mu ne ah man de soixante dix am na sax ko am te ne waxaale na ci ba pare nga ne ko ah man mën naa laa fay cent kër gi dépassé na loolu yaa ngi waxaale ci kaw waxaale keneen yow borom kër gi boo nangulee kee la nga def baaxul kee tamit ñëw waxaale ci kaw waxaale ba ñeen ñaa ñëpp la ngeen def baaxul yoon saa salaam mu ni bu kenn di waxaale ci kaw waxaale keneen na nga bàyyi ba kooku gàntal ba xàcc am nga soog a dugg ca waxaale ba ndax loolu day jur ak daggoo mu ni nag wa kunu ibadallahi ixwaana na ngeen nekk ay jaamu yàlla kenn ku ci nekk jàpp ne jaamu yàlla nga maanaam bul xalaat benn garaat bu nekk ci yow lu dul nga nangu ni ab jaamu yàlla nga mu ni nag te nga nekk ay mbokk yoon saa salaam ba tey muy wax ni al muslim jullit de axul muslim jullit mooy mbokkam mu ni laa yazlimuhu bul tooñ mukk sa mbokk jullit wala yaxqiruhu bu ko xeeb bul xeeb mukk bu kenn xeeb sa moroom wala yaxzuluhu te bu kenn toroxalit sa mbokk muy lu ëpp ci àdduna actuellement nii xeebaate toroxalaate koo xamal lu ñaaw vilipande ko ila axiri mu ni nag at taqwa hahuna yoon saa salaam bi mu waxee wax yo pare dafa joxoñ ishaara ci dënn bi mu ni fii la ragal yàlla nekk maanaam amul kenn koo xamante ne dina gën sa moroom lu dul ci ragal ci ragal yàlla inna akramakum inda allahi atqaakum ki gën a tedd ci yéen fa yàlla mooy ki gën a ragal yàlla mooy ki nga xamante ne xolam bi ëmbalu ci kenn lenn ñaawteef waaye am xelamit du ci xalaat ci kenn lu dul lu baax yonente bi sallallahu alayhi wasallam loolu la joxoñee ci biir xolam bi wax ni at taqwa hahuna mu ni nag bi xasbi mri'in min alcharri an yaxqira axaahu muslim mu ni li gën a bon nag mooy ki nga xamante ne dafa jàkkaarloo ak moroomum di ko xeeb nee na yow la ngay def yow yaay ka gën a yées na ka ngay xeeb nee na bis boo jàppee ni di ko xeeb rek la nga def noonu muy xeebaate gi mooy la gën a yées nag mu ni nag ba tey kullul muslim ala al muslim xaraam mu ni jullit yii dafa xaraam ci moroomu jullitam mu koy jëmale jëm ci moom bi ci njëkk mooy damuhu sa mbokku jullit dafa xaraam ci yow ngay gis deretam ngay tuur deretam ay jamono menaces yi am ci jamono ji ay jamono ay dinaa la rey la woon dinaa la rey dinaa la suuj dinaa la jam dinaa nàccal xoolal baat yooyu nga xam ne iblis sas nañu ko mu dem di law ci société ba nga xamante ne léegi rey nit rendi moo xew rendi tëral nit ki rendi jéggi dem sa yoon subhanallah ñaaw teeg egg na fa te yoon saa salaam nee na dafa lii moom dafa war dafa dagan dafa xaraam ci ab jullit mu koy jëmale ci mbokku jullitam ba mu ci njëkk a lim mooy damuhu ngay tuur deretam moo xam ci xeex moo xam ci li ko gën a rëy mooy rey wa maaluhu ak alalam yam saa salaam ne ne ab jullit dafa war a sàmmal mbokku jullitam ab alalam xool leen fi jamono toll tey baat bi génn mooy dóor dañ koo dénk alal dóor na ko maanaam alal lu ñëpp bokk nga jël ko dóor ko mu jaral la sax nga dem tëddi kaso boo génnee lekk ko yam saa salaam ne ne ah jàppal ne da nga koo lekk nii mu rese fii de mais fële da nga koy fay benn par benn rawatina na bu na alalu séddoo alal bu nu jox ci mu penc mbokk yi jàppal ne kenn ku nekk ci penc mi am na ca wàll te ëllëg yowm al qiyam lu yoon saa salaam wax al muflis ndax xam ngeen ki ñu saisir ñu déedéet ak ki ñu saisir daan ni ñu ko déggee mooy koo xamante ne dafa amoon commerce après mu mujjee daanu mu loolu bu ku ñu saisir de ku ñu saisir mooy koo xam daa dajalay àq yu bëri yowm al qiyamati yóbbu ay julleem ay kooram ay naafilaam ay lu ne ci jaamu yàlla ay aj Makka ak umra lu ne mu yóbbaale ko wante ñamu yor leen àq mu leen di fay benn par benn benn par benn benn par benn ba ay yoolam yooyu mu amoon ci julli yeeg lépp jeex tàkk te ñamu alal ak des nañ ñu jëlaat ñee ci seeni bàkkaar di ko gàll di ko gàll di ko gàll ba ak yee jeex ndax yàlla ko maandu la mu ne lu ci mujj nag summa turaxifu naar ñu tàbbal ko biir safara yàlla ci yàlla musal beneen bi nga xamante ne moom la yoon saa saa mujjee nag mu ni jullit bi war naa sàmmal mbokk jullitam irduhu de deram yàqante der xool leen actuellement nii yow da ngay xamal nit ki nangam rek tey la loolu tey lay siiw tey lay dem États-Unis mooy lan da nga koy jaar ci réseaux sociaux mu daal di dem dem na tasaaro jàppal ni nag deram goog nga yàq fu mu mën a egg ci kaw suuf àq la boo ko amee ëllëg yow mal xam da nga koy dijjante ak moom te nag xamal ni bala ngay génn fii fii yàlla mu ne ki nga yàq deram yàlla bu dee koo xamante ne nag nit yàlla la woon nga tooñ ko bala ngay génn àdduna fii yàlla di la la weer bëccëg di la xaar fenn mu soog laa duma aqulu ma sami'tum wa astaghfirullaha li wa lakum lisali muslimin kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله الذي كفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما mbokk yi ginnaaw bi ñu santaate yàlla subhanahu wa taala te di ko doyloo di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi dénkaat suñu bopp di leen dénk ragal yàlla yàlla ñuy wax ci alxaamu ni ay yéen ñi gëm na ngeen ragal yàlla te ngeen di wax wax ju rafet wax juy defar nee na loolu de mooy liy tax seen mbir yéwén yuslih lakum amalakum te mooy tax tamit yàlla jéggal leen seeni bàkkaar te loolu la ñuy sàkku yàlla mu ne nag ngir ngeen am lool faw ngeen dox ci ñaari tànk yi wa man yuti illaha wa rasulahu faqad faaza fawzan azima ngir nga am islaax beeg yàlla jéggal la nee na faw ngay tënku ci li yàlla wax ci alquranul karim ak li yonente bi sallallahu alayhi wasallam jàngale muy ak sunnaam mbokk yi toll nañ ci jamono ci weer wi ñu nekk muy Shaaban weer wu yonente bi sallallahu alayhi wasallam wax ni ci la yàlla di dajale dossier jàmm bi yéegal ko ci kaw rabbul alamin ngir sa dossier la nga jëf ci at mi yépp yu baax ak safaan yépp ñu jël ko ni ko tegg ci kanam borom bi subhanahu wa taala moo tax abu musa al ashari radiallahu anhu wax ni yow yonente bi sallallahu alayhi wasallam daanaa la gis ngay woor mais woor gi ngay woor ci weeru shaaban bi doo ko woor ci beneen woor doo ko woor ci beneen weer bu dul weeru koor mu ne ko ndaxte weer la boo xam ne si la ñuy yëkkati jëfu jaam ma bëgg man alayhi salatu wasalaam subhanallah yonente bi sallallahu alayhi wasallam mooy wax mu ni moom mi yàlla jéggal maa taqaddam la jiitu woon ak la ma mu yàlla toppewul dara nee na daa bëgg bu ñuy yëkkati ay jëfam mu ànd ak koor mu ne nag dossier yi ñëpp la seen dossier di yëg ba mu des bokkaale katu yàlla yi ak ñen ñi nga xamante ne seen diggante dafa am daj dafa daggoo mbokk yi kon li ñu wax léegi ne mooy liy sabab daggoo ak la mu mën a jur cem penc ana lan la ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam jàngale ginnaaw xadis bi ñu wax léegi yàlla suñu borom subhanahu wa taala moo njëkk a wax ci alquran mu ni su ngeen gisee kër gu tas wala ñaari diggante yu dagg wala ñaari réew sax yu am ak féewaloo lan la ci yàlla wax qaala taala laa xayra fi kasirin min najwaahum illa man amara bi sadaqatin aw maarufin aw islaahin bayna annaas wa man yafal dalik ibtigaa mardati llah fa sawfa nutihi ajran azima mu ni bis boo gisee dagg dagg bu am ci diggante féewaloo munoo woote benn réunion benn ndaje bu gën ndaje bi ndaje ñun da dañuy diisoo ngir don gi ñu am alal gi fi ñëw ñu xool nan daka lañ koy jëfandikoo wala ah ñun da dañoo bëggoon dajaloo ngir waxtaane lu jëm ci penc mi lu koy yéwénal ba ca gën nag mu ni nga fekk na ab diggante bu dagg nga ne xaaral mu ñëw dox ca ngir mu jokkoo waat moo tax yàlla waxaat ni wa sulxu xayr boobu mooy bi gën yàlla suñu borom subhanahu wa taala ba tey dañu dénkaat mu ni wattaqullah wa aslihu zata baynikum wa atiu llah wa rasula in kuntum muminin nee na na ngeen ragal yàlla mooy di def lu baax li yàlla digle nga def ca kém ta bàyyi nag la yàlla tere ginnaaw gi ngay fexe di ñaw di rabb diggante yi nga xamante ni dafa dagg ndem ay jullit ngeen nag la yàlla wax yàlla ni ba tey loolu li muy jur ci yéen ak sécurité sécurité lay jur ci yéen ndax wa ma kaana rabbuka liyuhlika al-qura bi zulmin wa ahluha muslihun yàlla mu ne du ma wàcce ab musiba ak balaa ci ab réew wala ci ab dëkk wala ci ab kër fekk ni waa kër ga wala waa dëkk wala waa penc ba ñu ngi fexe di xool dëggante ya dagg ñu koy rabb yàlla mu ne dëgg dëkk boobu nag du ma fa wàccee musiba du ma fa wàccee balaa yàlla dénk ñu ba tey mu ni waatasimu bi xablillahi jamian wala tafarraqu na ngeen mooyaanu waxul jàpp leen de ci buumu yàlla gi mais na ngeen mooyaanu mooy jàpp gu dëgër goo xamante ni daa mel ne bu ñu noonu gaynde da rëcc na am benn buum dong bu fi nekk buum boobu moom ka ciy jàpp ku ne doo ko jàpp jàpp bu ndaw da nga cay mooyaanu loolu mooy mooyaanu yàlla mu ne na ngeen mooyaanu ci buumu yàlla muy alquranul karim mbokk yi fen de mooy li gën a xaraam bokk na ci li gën a xaraam ci li yàlla xaraamal te yàlla da koo daganal ci diggante bu dagg ngay dox ngir diggante ba defaruwaat nga dem ci diw nga ni ah diw mais de li xew seen diggante ñaaw na de waaye moom de noonu la ko ñaawloo seytaane na jàpp ne mooy liggéey waaye nangam waaye nangam waaye nangam moom de wax na ci yow sosal sax cee wax yoo xamante da nga koy wax ngir ci meram wàcc nga jóge ci moom dem ca ka ca des nee na yàlla mu ne bu fekkee def nga loolu ba nga xamante ne diggante ba defaruwan na defoo lu gën loolu ci kaw suuf mbokk yi te fii ñuy wax Kuba ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam am na réero gu metti gu fa amoon ba ñu dem bay tuurante deret Kuba mooy dëkk bi yonent sallallahu alayhi wasallam jugoon bi mu jugee Makkatul Mukarram jëm Madina foofu la escaloon ñooñ ñoo ko dalaloon foofu la njëkk a julli julli gi ñu bëgg a julli muy julli jumaa jàkka jafa nekk am na cay ngëneel képp ku wàcc ca Kuba julli fa ñaari rakka moo xam rakka gu mën a doon ñaari rakka la wala julli farata wala julli gu mën a doon am nga yoolu ku umra ngir doy béréb ba waa dëkk ba bañ amee ak jiw yoo ñu ñëw wax ko yonente bi sallallahu alayhi wasallam lam wax mooy jug leen ànd ak man ñu dem defari ji diggante ba mbokk yi loolu mooy taxawaayu ab jullit mi nga xamante ni nee na lim bëggal boppam mooy ak yiw rawatina ci jamono jii ñu toll suñuy jëf yëkkatiku yàlla tàmpane ko boole ci ñu muy jéggal yàlla ñu yàlla jéggal loolu mooy waruwaayu bépp jullit mu dox ci lépp loo xamante ni lu rafet la rawatina ci diggante yu daggoo mu dox ca ngir yàlla da ci islaax allahumma inna nasaluka min alxayri kulli aajilihi wa aajili ma alimna minhu ma lam naalam wa nauduka min alsharri kulli عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به عف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اهدنا إلى صراطك الصوي صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله